balaa ma ciy tontu. damay njëkk a wax ne débat bi d'accord nañ ñun ñëpp ne débat bu sensible la. question bu sensible la boo xam ne sax lii sénégalais yi di dund. ci cohésion bi am ci wàllu euh, religion ëpp na. di def def dafa mel ni luy luy ñuul luy tab bi. mais est-ce qu'on n'est pas on n'est pas assez vacciné. comme ni ko Saourou waxee pour vraiment dépasser. ce parce que affaire bi du mbiru religion. Mhm. yóbbu ko ci mbiru religion. Mhm. comme ni ko Saourou waxee. mooy gàkkal. loolu nga xam ne moom la ñu am ñun. de plus cher te addina bi yëpp. Mhm. di ñu ko nawe ak di ñu ko ñewe moom wax na li mu dund. mais diggante jàngu bi. ak euh, euh, euh, donc. l'islam bi mm. mais am na yu ci xew yoo xam ne kenn mënu ko wax. dama mm-hmm. ci joxe am na lenn par exemple soo demee tey Mbàkke. Mm-hmm. kër làbbe bi nekk Mbàkke kër Sëriñ Fàllu la woon. Mm-hmm. kër làbbe bi nekk Mbàkke fi làbbe yi dëkk ak fi ñu samp église u Mbàkke c'était une maison de Sëriñ Fàllu Mbàkke mu yëkkati ko may ko jàngu bi. pour jàngu bi tabax fa église ak presbytère mhm. église bi ñu am fa makkaan loolu soo demee ci dëkk yéen yu bëri nga soo demee chez les tijaan euh, euh, di nga fa gis mhm. loo xam ne buñ ko nettalee du donc maanaam jël lii di ko wax di ko def un débat lié au religieux sax dafa nekk loo xam ne dafay gàkkal loolu nga xam ne moom la ñuy dund ñun mhm. te ku nekk ci ñun di ko dund ci sa biir famille wax ji du lan mbirum école la ak mbirum comportement buñ ci ñëwee nag indi ci charte réew mi mais charte réew mi aussi bëri na ay mbir yu ci nekk parce que charte réew mi mais am na article yoo xam ne boo fa demee mais munuloo wax ne lii fa xew parce que école confessionnelle la école bii ay religieuses yoo xam ne Saint-Joseph de Cluny ñu ngi Sénégal depuis deux cents ans deux cents ans yi ñu ngi koy feete depuis daaw ñu njëkkee Saint-Louis seen première école fa lañ ko ubbee di liggéey ci santé di liggéey ci lu ne ubbi école bi depuis quatre-vingts ans 1939 te problème mosu fi am ñaata génération de sénégalais de sénégalaises ñoo fa jaar kon bu ñu toogee tey coow lii génn bu ma bu ma yóbbu France. Hmm. parce que France doonu si dara. <laughs> nañ waxante dëgg ñiy wax jan France la ak liyetu doonu ci dara. Hmm. waa ministère nag maa leen di encouragé nuñ jugee ci charte yi parce que lii du mbirum charte la wala mbirum lii ndax charte réew mi boo demee ci article dix-neuf bi nee nañ la les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. elles sont dégagées de la tutelle de l'État et règlent et, et administrent leurs affaires. d'une manière autonome hmm. li école confessionnelle la c'est mis dans le règlement intérieur ni nga ko waxee boo fay dugal sa doom nag hmm. dafa war a fekk nga xam fa nga koy dugal itam kon kon yoonu ministère nekkul ci ñoom nañuy tojee seen bopp ci wàllu jàngale hmm. am na lu mu ca ne mais boo ñu renvoyé ci charte réew mi parce que affaire bi dañ ci war a génnee mbiru diine ñu dem ci mbiru njàngale ndax ñoom ba ñuy ba ñuy instituer uniforme benn école xalaatu ko woon mm-hmm. te lu tax ñu def ko mais foofu xam ngeen ne ña fay jàngee ñan la mais ay famille du ay famille mm-hmm. pauvre mm-hmm. ñi nekk ci abri provisoire école yu ñu classe yu ñu climatiser ñoo fa am scolarité ba gën a tuuti par ak un million trois cent romb na ko mais ñun am nañ tey lu ñu doy ba ñu ñuy bëgg dugal ci wax joo xam ne xoolal ça concerne <laughs> déglu rek vingt deux saa mm-hmm. concerne vingt deux fa vingt deux élèves dix neuf yi sont de ci communauté euh, libanaise bi lañ bokk mm-hmm. bu concerné woon benn nit sax ñun mm-hmm. dañoo war a wax ne dañ ko war a xool waaye bu fekkee vingt deux élèves sur mille sept cent quatre euh, xaw ma quarante élèves yeewu nañ signé réglement intérieur bu leer buñ ci wax ne dañuy respecter règlement intérieur boobu mais ña fa nekk minorité ba fa nekk de de d'élèves catholiques la gën a teg ay ay ay conditions yoo xam ne soo duggee ci biir di nga ko gis. Hmm. di nga ko gis dégg naa ay nit ñuy wax ni que sax am na école yoo xam ne boo fay dugg boo dee catholique dañ lay laaj extrait de baptême parce que bëgguñu laa nga tudd Jean te fekk Jean moomu nekk jullit. Hmm. ñu ñëw di ko dugal ci yeneen donc lu leer lañ bëgg. très bien moi hmm. nañu xoolaat bu baax. coow lii fi ñu ko bëgg yóbbu. du foofa te ñi koy yëkkati it nañu xool ñoom fitna bu bëri am na ca réew ya ñu jóge mm. majorité bi ko bëgg yëkkati man waxuma ne de doo defal <laughs> ndànk nañu def ndànk ñu mm. fitna bëri na fa kon tey ñun dafa am foo xam ne fa lañ toll mm-hmm. te man je pense que tey doo ñëw sama biir kër mm-hmm. ma nekk école privée mm-hmm. euh, di nekk depuis quatre-vingts ans nga ni ma tey doo doo doo jógal ci siis bi ci suuf la ñuy toog à partir de maintenant dugg nga fa fekk nga nañ fay doxalee te lii am ci li tax mu yéen ñu yegg fa hmm. dafa fekk ne ñoom bu ñu nee tenu dañoo bëgg yemale ñëpp ndax doomu ministre baa nga fa doomu borom doole baa nga fa hmm. keneen ku fa ñëw ñu jël la fa parce que dañ la bëgg dimbale parce que ñoom ci seen ci seen euh, euh, kii la bokk ci seen euh, maanaam politique la bokk hmm. mais bëgg nañ ñu yemale la Mhm. bu fekkee ne day am signe distinctif yoo xam ne day dem ba di jur ne sama doom du toog fii du toog ak góor du toog ak jigéen du jege jigéen du rang ci ginnaaw jigéen du du def sport du def lii mais su boobaa dafay indi problème. wala sax yow nga yóbbu sa doom. bu boobaa nga jël sa doom jàmm ne ñooy. très bien nga yóbbu ko. Mhm. fi nga xam ne foofu di nga fa am loola lépp. très ndax nag bàyyi ma ma daane. jamono ju ñuy wax ne dañuy def statut. loi statut pour les daara. Sénégal ñun ñëpp ñu ciy xeex man bokk naa ci ñi ko doon xeex à l'Assemblée nationale. Mm. ñu ngi def seen affaire benn loi pour daara yi am statut. Mm. ñoom it mën a joxe njàngale bu mucc ay. man je pense que war nañu moytu. Mm. ah dem di dugg ci yenn wax yi nga xam ne. tamit buñ ko yëkkatee. du mën a dem. très bien.